bonjour Arma, comment tu vas Bonjour Fatim, je ça vais va bien, ça va. merci. Alors, est-ce que tu es prête pour le grand dossier Bercy Sport Ouais, je suis prête. Je fais un petit coucou à Tons Mirengue sur le Facebook Live de King FM, Asanda, Dao, Binet Goudiabi, pardon, Jaina Banjai, Dedoija, Tons Miringue, DD11, Napik, Aman. Est-ce que tu as enregistré quelque chose de fameux Ouais. Mhm. Alors bon, bah, on laisse le soin à Daouda de faire une entrée en matière par rapport à ce grand dossier Bercy Sport avec Arma. Magneto. Eh, Ils sont à ce jour quatre à avoir réussi le crossover de la musique africaine. Miriam Makeba dans les années 60, Manu Dibango au cours de la décennie suivante, Mori comptait dans les années 80 et Youssou lourd à la fin du siècle dernier. Le compte est bon, mais la grande différence de You par rapport à ses précédeurs, c'est d'avoir accompli sa performance sur le sol de ses ancêtres avec cette obstination tranquille qu'on lui connaît. Il n'a jamais considéré qu'habiter Dakar serait un obstacle à sa conquête du monde. Bel exemple et chapeau l'artiste, roi du Mbalak au Sénégal, chanteur africain, à la renommée internationale. Il est également patron de presse à partir de 2003 et de la fondation du groupe Futur Média. Youssou a reçu de nombreux prix pour sa musique, y compris celui du meilleur artiste africain en 1996 et celui du meilleur artiste du siècle en 1999. L'année où il a commencé à jouer à Bercy et a eu à inviter Tafa Gay en 2000 Baboy en 2008, Balagay en 2013, et Ferdinacoli Ferdinand Colli, Hassan Dour, en 2001. Essayons de revivre les temps forts avec Baboy et Tafagay. Tout de suite.

international sénégalais. Euh, ñu gis nak ci atum 2002 nous bakku bo xamné xam nga ko ba nga Youssou Ndour la invité euh, nga ci am. bon pour bo vraiment parce que ku nekk xamné amitié bi xamné bu dox sama Nous Youssou Ndour. bi ma woyé man invité pour nga ñëw de sa participation parce que la lutte dañ ko exporter. té exporter la lutte pour exporter culture ndax culture ci tam di ma tooñ sax na ma yéen da ngeen yaakaar ne làmb ji sport la mais sport et culture la donc loolu dama koy dama ko aggravé ba tey man ma lan moo ci sport sport bariwul li ci bi ngeen sifleeg bi ngeen liwtoo bi ngeen daante mooy sport ci làmb mais ginnaaw bi nga jógee sa kër rek takk see jaaj sotte ko see saafara sol sa xaftaan tuus bàkku ci ndënd yi culture bi la donc dernier moment mooy sport mun ko noonu soaay ak lu loolu moo na suñu déplacement ndeysaan dem c'était en 2002 su ma invité moi vraiment jox ma billet d'avion. te jamono jooju tamit ya nga tolloon ci ce ce sa jamono wa bobu maa ngi toll ci digg ndënd yi luma ma laal lu ma sax mo nga lañ ci souf. mbër mu bëril dal ma sha allah. tombé aussi na Youssou tamit nek aussi ci jamono jo xamantene jamono yooyu tam moom la parce que Youssou nag bi ñu commencé cheminement maanaam di and bobu temps c'était euh, tout un début comme fi ñoom Pape Diouf toll fi ñoom Wally Seck toll fi ñeen ay euh, Momo Dieng xalé yi fi ñu toll di jox dañoo yàgg ànd def nañu benn concert boo xamante ne su ma juumul c'était en 1992 Oustad Oustaz Diop ah, def benn soirée euh, ba saa Youssou Ndour joué Kazem Samba Diéry Diallo xam nga Kazem Samba Diéry Diallo fi mu ne nii Youssou Ndour rek mu fay fu doon ñëw di nuyoo rek xaju fa déjà nga xam ne kon àdduna ndeysaan yàgg na gudd na tey ñun ñëpp ci nekk laal na plus de 55 ans. donc mais di sant yàlla bu baax a baax rek. am na ay bercy yoo xamante ne nii ci topp toppaat yi nga ci doon teew. Euh, lu la ci gën a marqué. boo man li ma ci gën a marqué moom mooy ñi nga xamante ne dañu ñëw di solidarité ak solidarité ak Youssou Ndour ñi nga xam ne dañu koo bëgg di ko topp attention am na ñuy dajale daga seen billet fii bu seen visa bopp dem toog seetaan te bëgguñ sax Youssou xam leen ndax mbëggeel bu ñoom ci ñoom rek am ñoo xamante ne Youssou Ndour moo leen di fayal am ñoo xamante ne ainsi ku nekk yaa ngi dem rek pour wane Youssou Ndour delloo ko njukkal tey ji Sénégal bu ñu delloo njukkal rek buñ buñ naan bu Sénégal la woon dañuy delloo njukkal Youssou Ndour ci Bercy ba rek tey ji waa France kon dañu am place kon Sénégal ñoo fay fees en général nag mën nañ ne Bercy euh, cinquante pour cent yi d'après li ma calculé c'est les Sénégalais parce que boo xoolee maaw Bercy jour boobu la veille wala l'avant veille dangay gis ne avion yi dafay commencé jafe yi jëm France parce que ñëpp ay bëgg a dem

ñu lay jaajëfal bu baax di kontaan nag euh, bu baax ci teewaay bi fii ci King FM. te Youssou Ndour c'est un ambassadeur kon tey jii euh, lu mu def rek. dafa am importance dafa rafet pour ñuy sigil Sénégal sigil africain yi parce que tey dem bitim réew di dem Bercy bés numéro yi mu koy feesal di bégal doomu Sénégal yi fa ne ak doomu ak doomu africain yi loolu rafet la di ko ñaanal daal mu gën a jëm kanam. waaw Baboy dañu gis ne loolu nekkul ku nekk ko mën a am est nekkul nekk jamono yooyu noonu fi nga tolloon ci sa carrière ci làmb ji nga xam ne yaa ngi ci doon yëngu aussi sa xarit la wala dafay da am yenn relation yoo xam ni loolu waroon a mën a am. non Youssou moom wax dëgg yàlla reportage kon boog tey moom bu ma invité damay dem Bercy bégal ko bégal africain yi fi ne bëgg Sénégal waa jamono jooju maa ngi ci lamb ji di def lu rëy di toj lamb ji boobu maa ngi bëre Giri Bordeaux ba daan ko ci nanu jot mbéy gay fay mbéy gay fay na xaaral ma passé Youssou Youssou ne ma mais rak xanaa di nga ñëw ma ne ko non grand yow loo def dañu ñëw parce que yow borom baax nga te li nga liggéey ci Afrique dafa rafet ñun danañ ñëw def si noonu la mbir mi demee ñu dem fa loolu moo tax ñu dem fa bu ko demee moom tey mu def lu rafet way ñu nekk fa foo ànd ak peuple Afrique beeg Sénégalais ñëpp ah tubaab yooyu yëpp defar ba mu baax waaw. bu ñu gisee euh, yow Baboy. Euh, mhm. boobu ba tey yow bàyyi woo di dem Bercy. waaye merci yi nga dem yëpp at at boobu noonu est-ce que marqué na la comme euh, ni mu lay marqué chaque année ndax euh, chaque année moom boo demee macha allah fekk fa lu lu neex. waaw xam nga lu may gën a marqué ci Bercy mooy. Euh, doomu sénégalais yi dañ fay daje. da ngay gis ñi nga xam ne dañ leen gëj a gis ay dix ans ay quinze ans. jóge ci ay yeneen réew Italie France Belgique Allemagne Hollande ñëpp ba États-Unis ñëpp dañuy daje foofu bu ñu ñëwee foofu dañuy kaf. ree nekk kam xam nga fàttaliku Afrique fàttaliku lu bari loolu dafa neex regroupé boobu ñu def rek loolu c'est très important parce que loolu tamit nit ñi dañ soxla Europe dafa bëri stress dafa dafa xaw a metti xam nga kon boog Youssou Ndour day dindi stress gaa yi bégal leen génnee stress bi ci seen kaw loolu moo tax nag ñëpp dañuy dem. ñu lay jaajëfal bu baax Baboy. merci beaucoup ok C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Bye bye. Yawane, bye bye. Alors, <laughs> à 9h14 minutes. Dans la matinale de Morning King, voilà, c'était le dossier que Rahma a proposé, c'est ça, par rapport au Bercy et Et je rappelle que King FM est partenaire particulier euh, par rapport à ce grand Bercy de cette année. Effectivement, oui. Nous voyons euh, ci à nga partenaires nous avons euh, deux filles Nous Joyce voilà dinañ ci euh, gën a gën a gën a leeral. a mm-hmm. ci bersi mm-hmm. yi nga xamante ne nii weesu nañ ko te euh, am yoo xamante ne peut-être raté woon ngeen ko. mais mm-hmm. ñoom dinañ leen ko indilaat ba mu gën a leer. effectivement parce que euh, Bintou viendra aussi avec son dossier Bercy. Bintou elle va pas parler voilà des chanteurs sénégalais que des personnalités sénégalaises que Youssou Ndour a eu à justement inviter et puis Joyce elle elle va aussi parler de son Bercy côté Afrique. Donc, c'est-à-dire, euh, Joyce va proposer aussi les invités qui, hors, hors sénégalais, qui ne sont pas sénégalais, qui étaient africains ou sur le plan international, que Youssou a eu à inviter par rapport au Bercy Parce que Youssou Nour, chaque année, il se dit Ok, d'accord, aujourd'hui, pour mon Bercy, je, je me sens d'humeur sportive. Je vais inviter que les sportifs cette année. Et puis une autre année, il va dire Je vais inviter que euh, des, des, des, des, stars sénégalaises. Et une autre fois, il dit Je vais inviter que des stars non sénégalaises, mais africaines. Voilà, il a des idées comme ça. Et donc aujourd'hui, tu nous as proposé euh, Bercy Sport. Et donc, récapitulatif, euh, justement, Rahman de tous les sportifs qu'il a eu à inviter. aqui, aqui, aqui. Euh, waaw Fatim bu ma déggee bu baax euh, li nga wax am na euh, Bercy mhm. yamul seulement ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy sénégalais yi mhm. parce que am na ñoo xamante ne nii ñu ngi ci pays Afrique yi dañ koy waaj comme ñun nuñ koy waajee mhm. Youssou Ndour moom ñëpp ko moom dañoo bokk loo xamante ne nii mënuñu ko partager voilà ñi nga xam ne invité woon nañ leen si Bercy bii nii mu nekk mbër yi wala sportive yi Bala Gaye bokk ci ak ki nga xamante ne nii mooy Baboy pour ñi ko xamul mooy Bala Bey Bay mm-hmm. Balla Bay lañ koy woowee mm-hmm. aussi mm-hmm. Euh, invité aussi ki nga xam ni mooy Tafa Gueye euh, lii jëm nag euh, ci sportif yi football ki nga xamante ne mooy Habib Bay El Hadj Diouf ak Alassane Alessandro, Alassane Ndour Ferdinand Coly et Ferdinand invité won mhm. euh, ci Bercy yi nga xam mhm. euh, invité won nag joueurs en 2001. 2002 2000 c'était en 2001 ñu watch watch 2000 football 2002 mhm. voilà. Donc c'est bon Ouais. Très bien, ok. bon, mais euh, justement, euh, Daouda. Euh, la musique de Ousmane hein, pour dire que voilà, si vous n'allez pas à Bercy, cette année, ça va être un Bercy très très particulier, je le sens. Hein. Je le sens, mon intuition me dit Bercy <laughs> Bercy <laughs> C'est clair. Allez, on écoute à 9h17 de la matinale The Morning King de King FM. Merci beaucoup Arma, tu restes avec moi. Euh, on écoute le fameux